nga sawar poser la question bi mooy que ne sa sa sa regard du ànd ak benn benn par parloo euh, même si euh, li dessiné wu yëpp jusqu'ici vraiment euh, dafa favorable largement à Bassirou Diomaye Faye ma bëggoon a xam yow au vu de li nga gisagum naka nga koy comprendre ce qui qu'est-ce qui l'explique ce qui se passe depuis depuis dix-huit heures waaw jërëjëf Mamadou Awa je pense que li xew ni tey dafa mel ni un détournement référendaire de l'élection c'est-à-dire dafa mel ni dañu ndax pour ou contre la continuité du régime du président Macky Sall ou pour le changement te boo gisee li fi jot a xew yépp euh, ci wàllu politique maanaam ci jël dooley euh, askan wi di ko dóor ci kujje gi di ko dóor ci askan wi vraiment euh, pratique autoritaire yi président dem ba le 3 février loo xam ne mosul am ci àdduna ci réew yi nga xam ne fa la démocratie gën a saay ñu bàyyi ba à 10 heures de l'ouverture de la campagne mu ne damay wax midi toog bool finalement wax 14 heures ne dàq naa élection yi te bu ñu fàtte ne élection askan wi moo ko moom mhm. ponk ñett ci ndeyu saatu réew mi dafa ne euh, kilifteef gi maanaam cap euh, ceggal guy gi ci démocratie askan wi moo ko moom mu teg ci ne wante benn pàcc ci askan wi walla benn nit mënul aakimoo looloo nga xam ne mooy sañ-sañu askan wi donc loolu dafa nekkoon lu doy waar loo xam ne kenn mosu ko gis donc loolu joué na bu baax ci li nga xamante ne moo nekkoon euh, élection yi nga xam ne moo am tey beneen bi aussi mooy en emprisonnement libération Ousmane Sonko ak libération euh, Bassirou Diomaye parce que dañ leen euh, jàpp boo jëlee la cas de Bassirou dafa def benn benn poste la def ñu ne dafa dafa tooñ magistrat yi daf mm-hmm. leen euh, waxee euh, anam yoo xam ne tegginewul ñu téye ko fa six mois alors que en matière délictuelle boo defee six mois dañ la war a libérer ñu bàyyi ba six mois yi jeex ñu dal di gàll ci ndoddam yeneen tuuma yoo xam ne tuuma yu diis la te tuuma yooyu buñ la ko xasee teg Euh, day doon euh, ay infractions yoo xam ne crime lañ koy woowee bu boobaa nag dootul am délé pour ñu instruire donc mën nañ la fàtte kaso boo kenn xamul donc euh, ay mën nañ la fa bàyyi ay ati at nga gis fii mbir yi demee honorable député wax na ko day wone aussi mbiru yàlla Machiavel di jàng bu xam ne boroom xam-xam bu mag la bind le prince dafa wax ne politique ci doxalinu carrière politicien ci ci parcours dafa am ñaadu ci am solo benn bi mu koy woowee la wirtu beneen bi la fortuna la wirtu mooy capacité mën-mën pexe ak li nga xamante ne moom ngay jéem pour lal ko euh, donc beneen ak compétence mën nañ ko woowee compétence mën-mën beneen bi di la fortuna la fortuna mooy le sort le hasard ci latin maanaam li nga xamante ne suñu borom noonu lay defaree mbir yi ba nga xam ne dina ko jaarale ci anam yoo xam ne dafay yéeme ba dal di tab nit ki mu falu donc loolu dafa am lu loolu ñaar yooyu yëpp dañ koy gis euh, ci coalition euh, ci euh, résultats yi nga xam ne coalition Diomaye mi ngi koy am gis nañ ne itamit sénégalais yi généralement bëgguñu ñuy bëgguñu injustice à chaque fois que jëm jël nañu dooley askan wi dal ci benn benn opposant da ngay gis ne askan wi daf koy daf koy faral loolu aussi euh, loo xamante ne la mën nañ ko am ci jàngat boobu rawatina nag bi ñu leen génnee Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye ñu mm-hmm. génne leen ci diggu campagne bi ñu ñëw dal di soppi xar kanamu campagne bi dal di dugg ci biir askan wi moo tax dafa meloon ni dañu ñaari élection bi pratiquement dafa mel ni ñaari nit ñoo ko ñoo ko moomoon Euh, Bassirou Diomaye ak Amadou Ba te askan wi euh, li fi jot a xew yëpp nga xam ne mosu fee xew ci wàllu démocratie gis nañ pour la première fois ñuy tiire ci ay nit ba mu yegg ba ay quatre-vingts morts. Mhm. loolu lu mosta am Sénégal parce que maintien de l'ordre euh, dañu ne c'est le point d'équilibre entre le désordre supportable et l'ordre indispensable parce que l'ordre absolu ne règne dans les cimetières donc ordre public toujours ay naxante lay doon parce que ñi nga xamante ne. ñooy manifester ndeyu sàttu réew mi moo leen may sañ-sañ bi te nekkul ñoo xamante ne ay noonu euh, takk der yi lañu donc am na nu ñu war a defee ba nga xamante ne dinañ leen encadrer te du am ay moor mais moor yi fi xew ci ay manifestation dafa jéggi dayo lu kenn mësuta gis la donc loolu yëpp dañu bëggoon euh, tourner ces pages sombre de la démocratie sénégalaise loolu aspiration au changement bu amoon solo la yaakaar naa ne loolu la peuple sénégalais bi wone ne li fi jot a xew neexuñu te bëgguñu mu xewaat fi donc ñi nga xamante ne tey ñoom la ñu gën a teg loolu ci lu metti ñooñu la ñu wëlbatiku fal ñooñu itamit ñu xam ne euh, sas la ni ko maître Tine waxee. Mm-hmm. sas la parce que euh, dañ leen di xaar ci lu bëri. Euh, parce que am na ci wàllu euh, ci wàllu économie ci wàllu xëyu ndaw yi euh, ci wàllu koom-koom gi loolu yëpp ñu ngi leen ci xaar mais aussi ñu ngi leen di xaar ci wàllu institution maanaam nan la ñu tabaxaatee kuréel yi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi président de la république bi nga xam ne sañ-sañ yi mu ngànk dafa bare te léeg-léeg dafay doon loo xam ne euh, dafay gàllankoor ak ak yelleefu doomu aadama yi dafay gàllankoor ak euh, ak yelleefu ñi nga xamante ne ñoo féete ci kujje gi loolu yëpp ñu war ko seetaat war ko seetantal fexe ba ñu am président boo xam ne euh, dana nekk koo xam ne dafay jëmmal démocratie jëmmal état de droit maanaam nguur gu tegu te tënku ci yoon mm-hmm. dal di jëmmal itam li nga xamante ne mooy bëgg-bëggu sénégalais li nga xam ne mooy koom-koom gi koom-koom goo xamante ne war na tasaaroo euh, ci biir askan bi tasaaroo itamit ci gox yi ak ci goxaan yi ba sénégalais yëpp mun cee jot gis ci seen bopp.